sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi ajmain bokki jullit yi fi teew bokki taalibe yi noo ngi delloo jéggulu kàddu yi ñuy yëkkati ci kanam kilifa ku tedd gi te ndigal teg na ko noo ngi nuyu sëriñ bi nuyoo bi yàlla ci moom te jaadu ci moom di nuyu njabootuk sëriñ Touba gi fi nekk ñépp te mën a wax ni ñetti xaaj la bu jëkk bi mooy ñi mu bokkal Mbàkke te ñu bopp seen lépp jox ko ko bu ñaareel bi mooy ñi mu bokkal sëriñ bu soobe te ñu fab seen lépp jox ko ko bu ñetteel bi mooy ñi nga xam ni ci ñoom la feeñale liggéey bi ko suñ borom dénkoon te mooy di seex si ak ñi leen fi wóotu ñëpp ñu ngi nuyu ñëpp ci turu sëriñ bi di sant bu baax nag ci xéewal gi nu sëriñ bi defal boole noog jëmm ju tedd nii jëmm ju baaxe nii jëmm ju mate nii yal na yàgg di xam le ni li ñu waroon a wax lépp sunu bokk yu baax yi ñu jiitu waxal nañ nu lépp ba dara manqué wu ci kon noonu dañuy def rek sant yàlla jéem a gën a gën a feddali sunu bi gën a xam ni li nga xam ni moom lañ jublu woon ngir leeral ko lépp ñoom leeral nañ ko la ca dolli ko rek mooy ni ko sëriñ bi waxe woon sant ak soññu ñu bokk soññ bu baax xam ni sëriñ bi lim bëgg bëggal nu ko bëggal ko njabootu sëriñ Touba bëggal ko lislaam bépp mooy nu ñàkk jot am jot daa jigul kenn lim bëgg mooy ñun ñëpp ñu ñàkk jot rawatina gone yi nga xam ni ñoo toll ci xam ak xamlu ñooñu bàyyi na leen xel lool sëriñ sëriñ sëriñ si bi wax léegi leeral nañ ko ndax ku jaar fii ñu fii mu jaarlu ci jàng ak jàngale jot dootu am ci réew mi te meññet ma cay jóge bu bu dikkee réew mépp lay jariñ mu mel ni sëriñ bi lim jublu mooy rabtul maadi bil xaadir wal mustaqbal maanaam waajal li fi nga xam ni moom la fi may maam yi bàyyi woon muy njàngalem sëriñ Tuubaa mi mu fi bàyyi woon te njabootam gi yor ko jàgge ko yore ci réew mi ba mat téeméeri at fii mu nekk nii njàng moomee sëriñ fi dafa bëgg sëriñ bi daa bëgg ñu téyel ko ko te moo di njàngeenu alxuraan fi mag ñi bàyyi woon ak njàngeenu xam-xam bu fi mag ñi bàyyi woon su ko defee loolu mooy maadi bi ñu téye ko képp ku fi ñëw xam ni am nañ démb loo xam ni mën nañ caa jàpp ba àddina tukki la ca topp mooy xaadir bi mooy nii ko sëñ Ahmad Badawi waxe buñ toppee njàng mi barnaamaj bii mu tëral tëral ko ci xam-xamu alxuraan tëral ko ci xam-xamu majaalis buñ ko doxalee nañ ko war a doxale jàpp nañ ni bu ëllëgee te mooy mustaqbal ba mbooloo mi sëriñ Muntaxa bëgg a jébbal sëriñ Tuubaa ci téeméeri at yële di ñëw dana nekk mbooloo moo xam ni ku leen gis sa xel dina dem ci sëriñ Touba ci seenu col seenu wax seen jëf ak seen tasarrufaat yépp loolu la mun Muntaxa bëgg yàlla na ko ci yàlla jàppale moom nag jëmm la joo xam ni du noppi di ko wax ndax lii nga xam ni ci lañ ñu yónni muy daara yi alxuraan yi ak xam-xamu majaalis yi ba fi sëñ Sidi Muxtaar nekkee tegoon ko ci loxo yi ay nit boo ba léegi moo jiite lépp di ca wax di ca def ci ay tawjihaatam ay irsaadaatam lépp lu ñu am ci ndam ci lañ ko am ba tax na bii mu toogee lu mu nekkoon bu dee benn def na ko fukk moo tax bindoon nañ aw ay kayit yoo xam ni mboolem liñ fi liñ fi def ci ay injaasaat te te mu def tàmbali ci moom rek bindoon nañ bind nañ ci lépp waaye waxtu wi dafa xat waaye faw ñu leeral ni alxuraan daaree alxuraan lim ci def ñett la daaree alxuraan gën a soxla la ca jiitu mooy kaamil yum jànge la ca topp mooy wérug yaramu gone yi jàng la ca topp mooy seenub dund la ca topp mooy téere yi xam-xam yi nga xam ni majaaris yi dinañ ko jànge ak téere yi xasida yi nga xam ni daayira yi dinañ ko jànge loolu nekk nag lu ci nekk sëriñ bi defal na ci boppam ci loxol boppam loo xam ne lii jéggi na dayoo ndax bu dee ci kaamil yi séddale na fi bi mu toog ak léegi juróomi junniy kaamil ak juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent su fekkente ni ci wàllu wér-gu-yaramu gone yi la joxe na fi ñaar fukki million ngir ñu def ko ci wéru xale yi ni ko gouvernement Sénégal tërale ba la waral yàgg ga moo di dañ doon seet fu ñu ko mën a dugal ndax lu jóge ci sëriñ bi dafa sell sell goo xam ne gii fa nga koy dugal war ngaa xam fu mu doon door ko mën a dugal sëñ Xaadim Jóob mi ngi ci liggéey moo ngi ko àndal waxtu sottee lépp dana mel ni ko sëriñ bi bëggee bu dee ci wàllu dund bi sëriñ bi sonn na ci lu mat ñaar fukki ton ci ceeb joxe na ko ñaar fukki ton ci dugub joxe na ko même xorom joxe na ci ñeent fukki ton ñeent fukki ton kon kooko bu nee damay dimbali njàng ak ak jàngale ñëpp mën nañ koo dégg bu dee ci xam-xam yi joxe na ci téere yu baree bare yoo xam ne yi sëriñ Mbàkke Abdourahmane xam na ci dara moo koy séddale majaalis yi bu ci téere xasaayit yi joxe na ci lu baree baree bari sëñ am sam sëñ bi ak sëñ Mustafaa sëñ Muhammadan xam nañ ci dara bu fekkente ni itam ci yi daara mënta ñàkk la muy ay satala ay kopp ay kaas ay sànke lu mën a doon sëriñ bi jox na ci lim yoo xam ni yi lépp mi ngi bind teg fi nañ ko joxee lépp bind nañ ko teg nañ ko ci loxoom xool na ko xolam sedd ji lii lañ lañ la doon leeral wane ne sëriñ bi toogul ci wax rek yem ca waaye dafa dafa jëf bokkut ak nag li nga xam ni lii moom moo ko jëfal boppam ci loxol boppam bokkut ak li nga xam ni nag moom la ko nit ñi xam ngiñ xam ni yitteem yitteem la ñu def ko loola jataay bi daa xat ne kon dinañu lim ñu ñu ci def ñëpp liñ ci def lépp ci ba bi mu toogee ak léegi kon loolu lañ ñu woon nañ ko leeral lu mu gàtt gàtt di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan ñu bokk ñaan